Serigne Alioune Guèye xale yi dañ ma daan wax bu ñuy weranteeg moom duñu bëgg nga ñëw ndax daf lay rus waaye boo ñëwul nga gis mu summi mbubb mi ba dese faram ci wàllu xam-xam doo xam ku koy mën a raw waaye diñ ko fekk mu toog di werante xale yi ba dafa ñaqtooy xëpp ki ko gënoon a lëjal ci kër gi mooy ëmat loo waaw ak Moustapha Lo li ñu daan won sëriñ Alioune Guèye ndax sëriñ Aliou li mu gën a bañ nit ko attaqué théorie Maodo bu ko defee mu ne tey mu dee ko de xale yi déggoo ci suuf rek bu ñëwee rek ñoo attaqué benn mu daldi di sumbi mbubb ma wékk ni ma ngay défendre position Maodo def ca daan sonn sëriñ Moussa nee na ci karaama Maodo yi biir la bokk ndax moo gënoon a tuuti ci ñun te róof sàkku cent kilo yëkkati ko du woon dara ci moom ak ni mu xiibone ak ni mu tuute ndax yéeneem rekk bare woon lu muy tawat la waaw ma am na bis ñuy waxtaan ci ni mu xiibone ba tudd gàncax gu ñuy wax njàddam amul ma ko lu tax gëléem bëgg ko mu ni ma fas dafa tedd wante gëléem dafa am jom mu ni ma te feebar yépp gëléem tooy la ci gën a ragal ndax xam li ko war ci boroomam mu ni liñ koy yenn ëpp na te balañ ko ko yenn mu yis te ne liñ koy yen ëpp na te balañ ko ko yen mu yës nee na buy sippi bala sippi yës mu ni ma tafasul yéene xañ borom loolu boroomam mu ni ma loolu tax quân nhân dân đâu wow. nên nó phải phải rồi không đâu